2021. Diaspora 221. Pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables et vérifiées. salaamaaleykum sunu mbokk internet diaspora 221 ñu ngi leen ñu nuyu nouvelle bu metti bu triste moo dal ci famille Seck mais nouvelle bu metti moo dal ci Sénégal warmal këpp kii di Kiné Diouf Diaga yaayu waali Seck moo dal di génn àdduna léegi gannaaw information yu ñu am nag depuis quelque temps Kiné Diouf Diaga mu ngi woon foofu ca France di dal di faji ñu ngi koy ñaanal rek ak famille Seck bi yëpp fu mu jëm gënal ko fu mu jóge salaamaaleykum sunu mbokk internet diaspora 221 ñu ngi leen ñu nuyu nouvelle bu metti bu triste moo dal ci famille Seck mais nouvelle bu metti moo dal ci Sénégal warmal këpp kii di Kiné Diouf Diaga yaayu Wally Seck moo daal di génn àdduna léegi gannaaw information yu ñu am nag depuis quelque temps Kiné Diouf Diaga mu ngi woon foofu ca France di daal di faji ñu ngi koy ñaanal rek ak famille Seck bi yépp fu mu jëm gënal ko fu mu jóge Pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables et vérifiées.